bonjour à tous bienvenue dans ce nouveau numéro de Sen Santé numéro bi dañuy waxtaanee la maladie d' Alzheimer fàttali lan mooy maladie d' Alzheimer complication yu nga xam ne mun nañ ko ci amal mais euh, prévention bi nga xam ne en tout cas mun nañ ko def euh, ba du ñu yegg ci yenn gàllankoor yi nga xam ne euh, cette maladie daf koy indi donc ñuy ànd si waxtaan bi ak professeur Koumé il est gériatre chef du service de gériatrie du centre hospitalier national universitaire de Fann professeur bonjour Euh, bonjour euh, Bintou. voilà professeur euh, comme ni ñu ko waxee rek tey dañuy waxtaanee la maladie d'Alzheimer. ñu fàttali rek euh, lan mooy la maladie d'Alzheimer. waaw maladie d'Alzheimer. Mhm. benn xeetu naax la. naax mooy xel muy dem ci mag du delsi boo jëlee naax téeméer yi juróom benn fukk yi maladie d'Alzheimer mooy naax bi gën ëpp. ci ñuy jànkoonte ak ñun suñu wàllu faj euh, ci ci mag ñi. d'accord euh, na mën a dal semaine daal naax la. naax naax naax bi gën a fës ci mag yi. d'accord euh, mu nekk benn feebar boo xam ne nit ñi liñ ci xam rek mooy naax donc koo nee maladie d'Alzheimer approche profane bi rek mooy naax est-ce que leneen dañ koy noter ci maladie d'Alzheimer au-delà même naax bi nga xam ne daf koy indil nit ki. waaw maladie d'Alzheimer boo ko seetloo. xam nga bu njëkk ba dañ naan mag dafa naax mooy dafay fàtte. te du fàtte yépp ñooy naax ndax dafa am fàtte yoo xam ne fàtte yu jaadu la ci mag parce que mag bu demee ba am juróom-ñaar fukki at ak juróom ak lu topp dina am ay fàtte yoo xam ne méngoo nag ay atam. mooy naan naax bu bu fàtte bu normal euh, léeg-léeg nga fàtte benn benn mbir nga togg ba si ak mu ñëwaat loolu du naax. Euh, am na loo xam ne aussi dañ ko woowee confusion gëlëm la loo xam ne da ngay toog ba sàgg nga gëlëm di jaawale bëccëg guddi euh, doo xam foo nekk loolu dina xaw a faral daan mag mais dafay dafay dañ naax dafay feebar boo xam ne bala ñoo wax naax la fokk muy loo xam ne ëpp na juróom-ñeenti juróom-benni weer ba at. nga xam ne xel mi nga xam ne mag mi xel maa ngi dem di dem te delsiwul. ngi fàtte di fàtte te fàttalikuwul loolu la ñu dugal ci naax. bu boobaa nag euh, naax boobu dafa li mu ëmb dafa bëri euh, parce que boo ko seetloo naax naax bi ci ëpp mooy la ndax maladie d'Alzheimer mais am na yeneen xeeti naax yoo xam ne euh, feebaru tension bu yàgg ma koy joxe am na yeneen naax yoo xam ne ay anomalie yu nekk ci deret yi ma koy joxe am na yeneen naax yoo xam ne aussi mag mun na daanu bopp bi nàcc xamuñu ko mu mu mu koy joxe. loolu lépp dafay loo xam ne euh, léegi am nañ ay jumtuwaay yu ñu xam ne mën nañu xarale nañu yu ñu xam ne mën nañu permettre bu ñu bu ñu jànkoonte mag yi bu ñu duggee analyse yi danañ permettre ñu xam ban xeetu naax la exactement éliminer yi nga xam ne mën nañu koo faj door a dese bi nga xam ne mooy maladie d'Alzheimer. d'accord ñu ñëw d'ailleurs ci euh, naka la ñuy établir diagnostic gu maladie d'Alzheimer. waaw maladie d'Alzheimer. Mhm. Euh, boo ko bu mu ko fàttalikoo ki ko njëkk a gis. benn psychiatre allemand la bu tudd Alois Alzheimer bi mu ko mi ngi ko découvrir en 1907 booba léegi parce que téeméeri téeméeri at ak lu topp euh, dafa remarqué woon ci service am dafa am kenn ku tudd Auguste Deter Auguste Deter dafa demoon ba lenn rek la jàppoon ci ci ci ci ci moom mooy turam. d'accord leneen lu dul turam mhm. mi ngi doon dund. mi ngi doon dund leneen dig jigéen la. Mhm. leneen lim lépp lu leneen lu dul turam daal jàppatu ko woon. boo ne ko na nga def mun a augus deter boo ko loo loo añee mun a augus deter loolu daal la xamoon bi mu gaañoo nag bi ñu jëlee yuur gi bi ñu ko xoolee saytu ko ci lañ gis ma li nga xam ne moom lañ moom moom mooy ba tey ba ba ba jamono ñu toll nii mooy maladie d'Alzheimer d'accord donc euh, ni ñu koy fësalee maladie d'Alzheimer dafay dugg ndànk maanaam dafa mënul tëb rek fës gaaw dafay commencer ndànk-ndànk ci fàtte. fàtte lay commencer fàtte lay commencer. da ngay fàtte maanaam da nga gis mag mu am juróom-ñaar fukkat wala juróom-benn fukkat ak juróom lu topp commencé di fàtte waaye du fàtte boo xam ne. te année bi mu lay commencé dugg sax nekk goo mag mën nga mën nga dem ba am juróom-benn fukkat ak juróom juróom fukki at ak lu topp. d'accord juróom-benn fukki at daal ci lay commencé juróom-benn fukki ak juróom. Mhm. jëm kaw ci lay gën a faral di commencé. d'accord euh, da ngay toog maanaam ngay fàtte euh, da ngay toog ba sàgg nga teg sa dara fenn euh, fàtte xamatu fu mu nekk wala nga jël sa xaalis am foo ko denc xamuloo fu mu nekk mooy waral mag ñi di euh, di di di di di jiiñ euh, sàcc. Mhm. Euh, ci waa kër gi man de ñu may sàcc ci kër gi. Mhm. bu ñu toogee ñetti fan ñeenti fan ba si yàgg bu ñu def rangé waate yére gis ni xaalis bi. da ko dencoon mhm. waaw ci fàtte daal lay commencé nga jël sa caabi teg ko fenn doo xam fu mu nekk. bokkul ak nag ki nga xam ne moom day fàtte mais day fàttaliku naax moom boo commencé fàtte du delsi ci fàtte lay njëkk a commencé. Euh, ay ay denc dara doo xamatu fu mu nekk jël sa xaalis ranger ko ci sa biir ay yére fàtte fu mu nekk jiiñ sàcc gi jànq yi wala waa kër gi bu ñu xoolee contrôler ñetti fan mu feeñaat wala nga jékki-jékki ba sàgg euh, am ay ay ay ay ay bés yoo xam ne dafa dafa dafa amoon solo ci sa dund nga fàtte ko toog ba sàgg ne waaw man ndax ndekki naa laajaat ndekki mm-hmm. yu mel noonu daal ci loolu lay tàmbalee xale yi sët yi di ree ak yéen waay waay maam maam mais loolu. maama ngi naax maama ngi naax te loolu aussi bu commencé war nañu dem gaaw yóbbu ko ci ci médecin. justement fa laa bëggoon ñëw euh, d'ailleurs parce que ñu ci bëri ay foo lañ koy def. Euh, dañuy jàpp rek ne mag dafa ànd ak naax. Hmm. alors que mag bu jaar yoon war normalement warul ànd ak naax walla waaw wax dëgg yàlla mag daal. Hmm. mag bu mu wér. warul naax. Hmm. mën nay fàtte nag normalement mën nay fàtte loo xam ne buñ ñu ko fàttalikoo mu dellu si. loo xam dafa méngoog mag meeg mag moom warul nax d'accord loolu moom bu ñu ko gisee rek dañu gaaw yóbbu ko ci docteur ñu ñu saytu d'accord mu nekk une maladie boo xam ne dafay euh, engendrer de façon progressive euh, déclin cognitif bi mm-hmm. euh, déclin cognitif bi autant pour moi donc yooyu yëpp lan moo koy waral wala ñu ñëwaat rek ci diagnostic bi nga xam ne dañ koy établir mm-hmm. parce que bu ñu établir du diagnostic bi aussi duñ mën a ñëw ci prise en charge bi waaw parce que bi ñu ko saytoo mm-hmm. Euh, li tax mag di gënal di mag mag di am maladie d'Alzheimer dafa am benn ferñeent bu nekk ci yuur gi boo xam ne yuur gi moo koy xelli bu ñu woy acétylcholine bu ñu woy acétylcholine boo xam ne mooy tax ba euh, boo bu la waxee dara nga jàpp ko. d'accord bu la ko laajee nga delloo ko te loolu euh, mi ngi nekk fii ci ci ci ci ci ci temp bi fii la nekk ci benn benn structure bu nekk fii ci ci ci gannaaw bu nopp bi bu ñu tuddee hippocampe. loolu lépp lu nit wax rek. day dugg foofu rek nga capté ko. bu la ko laajee nga delloo ko. hippocampe boobu nag dafay dem nag ba dafay yàqu mooy waral boo defee scanner nga gis ne hippocampe bii dafa yàqu. day euh, jékki-jékki yàqu wala day de façon. progressive de façon progressive. mooy mooy li nga woy la maladie dégénérative. loolu dafay mag tax ma mag di gën a naax te bu ko defee ci cerveau bi euh, cellules bi nga xam ne. Euh, ñoom ñooy tax cerveau bi di fonctionner dafa am ñoo xam ne dañuy dañuy commencé di di yàqu di boole di dajaloo di yàqu ba cerveau bi zone yi nga xam ne ñoo yore xel ak xalaat commencé commencé di yàqu euh, loolu mooy expliquer euh, li tax maladie d'Alzheimer mën a mën a yàpp mag mais ci biir loolu li li li koy màndargaal ci docteur bi ñun bu ñëwee dana am loo xam ne danañ ko danañ ko danañ ko natt ci moom mais bala ñoo ko natt ci moom am na yeneen yeneen yeneen mandarga yoo xam ne aussi buñ ko xoolee ci nit war nañu xal ni war nañu seen xel war xel xel war na dem ci kii kat mi ngi am maladie d'Alzheimer maanaam toog ba sàgg eh, am nañ naan aphasie yi gis gis euh, gis mbir. Euh, moo xam ne param benn pot bu tegee mu ne mu bëgg wax doom ji wala sët bi mu jotli ko pot bi mu xool gis pot bi xam ne pot la waaye fàtte ne pot la tudd. d'accord day fàtte pot turu pot bi. jot jotali ma li ma lee mu ne ko maam lan la mu ne ko lii waaye dama koy fàtt nu mu tuddati ñu ne pot la. d'accord nit ñëw koo xam ne xamoon nga ko yàgg na nga xam nga turam mu ñëw nga fàtte turam. wala nga jaawale sa sa sa sa sa say say doom wala euh, dinañu daal nga gis malaat boo xam ne day nekk ak boroom këram dem ba ci biir mu jaawale boroom kër këram bu boroom këram duggee ci néeg bi mu ne ko. Euh, mu jaale ko nijaayam ne ko looy def sama néeg ak yooyu. ba doom yi ñooy ñooy fexe ba mu génn euh, ba ba loolu dellu loolu dellusiwaat mu ñëwaat donc loolu euh, aphasie bi ak agnosie bi gis mbir fàtte turam wala nga jaawale turu nit ñi wala nga ngay méngale nit ñi loolu aussi dafay loo xam ne dafay dafay dafay faral bi dal maladie d'Alzheimer bu ñu koy diagnostiqué nag mm-hmm. dañ koy natt parce que loolu dafa dafa dafa subjectif lu nettali la mais li nga xam ne dëgg-dëgg moom ngay natt parce que feebar boo gisee dañ koy natt. d'autant am na yeneen xam nga tension boo déggee ñu ne am na tension dañoo jël tension bi natt ko ak tensiomètre. ñu gis ne que dafa am tension bi yéeg na ñu ne kii dafa am tension ñu nag am na lu ñu koy nattee ni ñu koy nattee mooy ay benn benn test bu njëkk ba avant ñu am test boobu amoon na beneen test boo xam ne moo amoon sur le plan international moom la ñu wax. le Monumental Set Examination de Folstein moom euh, tubaab yi réew tubaab yi boo demee moom la ñu nattee xelu mag pour seet ndax euh, démence la wala du démence mais ñun dañu gisoon que ne loolu euh, pour ñu natt xelu mag il faut mag mag mi jàng il faut nga mag mag mi mën a jàng mën a mën a làkk mën a liir te loolu test boobu dañu gisoon ne que ne ak suñu aada ak suñu cosaan moo tax professeur Commodore Touré Euh, jël test bi bi mu jógee Canada def di def sa sa sa son son PhD en en en en médecine euh, en épidémiologie mu jël euh, indi test boo xam ne dafa méngoog suñu aar ak suñu cosaan ma ànd ak moom jën nañ daal juróom juróom benn téeméeri junni mag. Mhm. waaw juróom juróom benn téeméeri junni mag jënd nañ leen. ñu natt seen xel ba gis ne ñun suñu test boobu méngoo na ak test bi nga xam ne euh, yeneen bitim yeneen tubaab yi moom lañu moom lañ moom la ñu natt ba ñu validé ko ñu ne léegi mag moo xam ne daal jànguloo mën nañ loo nattee lii sa xel ñu woowee ko le test du Sénégal ci lañu ñu commencé nag ñun di même test bi ngeen euh, contextualisé moom la ñu contextualisé ko suñu contexte te euh, test bi ay laaj lépp li nga xam ne dafay wàññeeku ci mag jëm ci maladie d'Alzheimer maanaam fàtte bi maanaam concentration bi maanaam euh, langage bi maanaam news bi maanaam prex bi dañ koy natt fukki minute rek lay durer. Mhm. ay laaj yu simple la euh, tey ban wax la noo tudd euh, sa sa tudd fi nga dëkk jox ko jox ko juróom benn baat mu jàpp ko ñu laajal ko ko wan ko montre wan ko lam mu wax ñu ko ñu ñu ñu nettali ko dara mhm. mu delloo ñu ko ñu wax ko mu jox ayu ayubis yi mu mu mu jox ñu ayubis yi ci commencé euh, dibeer wàcc gaaw. Euh, bu ne ko param buñ ko bu bu amee ñaari téeméer euh, bëgg a jënd ceeb te kilo bi jaar juróom fukk ñaata kilo loolu mën a am. yu mel noonu daal di calcul simple yoo xam ne vraiment même tubaab bi sax d' accord nañu ak ñun que ne <laughs> loolu vraiment moo méngoog suñu suñu suñu aar caada ak suñu cosaan. donc bi ñu ko commencé ba léegi daal ci lañ commencé di gis que ndax mi ngi ñëw ñu ngi koy diagnostiqué. Euh, bu njëkk ba euh, ci gëstu ñu def boo jëlee téeméeri mag presque juróom-benn yi ba fukk yi am nañu naax ci Sénégal donc diagnostic bi euh, noonu lañ koy noonu lañ koy fësalee. donc diagnostic bi nga wax tout hmm. est-ce que démence su Alzheimer rek lay wane wala forme de démence yëpp wala am na ay diagnostic différentiel yoo xam ne après c'est spécifique à la maladie d'Alzheimer. laaj laaj bu laaj bu buy leeral mbir mi la. parce que diagnostic bi euh, loolu dafay wane rek que démence la dafa wane rek que ne naax la mais pour wane ne malade d'Alzheimer la am na yeneen test yu gën a xóot yooyu def yoo xam ne laaj yu gën a xóot lay laaj li ci gën a mandargaal daal mooy euh, maladie d'Alzheimer boo ko joxee dara mu jàpp ko boo ko joxee benn tur wala ñetti tur wala ñetti ñetti baat mu jàpp ko boo ko ko laajee maanaam nga ne ko mango boo ko joxee mango nga laajal ko ne ko lan laa laajoon léegi mu fàtte boo ne ko benn benn fruit la benn xeetu fruit la bu fekkee ne du malade d'Alzheimer dana la ah mango mais bu fekkee ne malade d'Alzheimer la. du ko jàpp parce que du enregistré. d'accord day enregistré euh, du tout du enregistré tout. Euh, ba pare il faut nga xóot xóot si biir nga def scanner parce que scanner wala IRM moom moo lay moo moo lay moo lay photographier lu yuur gi nga xool. Euh, bërëb bi nga xam ne place bi nga xam ne. structure bi nga xam ne moom mooy mooy yore euh, xam xel ak xalaat. Euh, nga xam ne moom mooy fàtt di fàttali boobu dafay xaw a dafay xaw a dafay am gis mu seey. nekkatu fa nekkatu dafay wàññeeku carrément. maanaam bu doon bu doon téeméer parce que juróom juróom fukk ya dem nañ. ba pare il faut nga def ay analyse deret yoo xam ne euh, dafay dafay dafay dafay dafay wane que ne manqué wul deret. manqué wul yenn xeetu euh, vitamines yoo xam ne bu manqué ci mag dafay naax maanaam vitamine B9 ak vitamine B12 euh, ba pare même ci scanner bi sax il faut nga xool que ne amul nàcc nacc ci biir mag parce que léeg-léeg mag daanu du ko yëg mais mu nàcc mu am li ñu naan hématome sous bu naccee nag normalement mun na naax mais naax boobu la naax la boo xam ne bu demee hôpital buñ ko buñ ko scanner xool ko bu demee neurochirurgie ñu dindi ko dindi naaj nàcc-nàcc bi xale mi day delsi d'accord mais Alzheimer moom fokk yooyu yëpp nga def ko ba mu wóor ne amul nàcc-nàcc ci no bi amul tumeur ci ci bopp bi euh, li nga ko wax du ko jàpp euh, amul dara lu manque ci deret yi nga door a jàpp ne alal di d'Alzheimer ci kaw aussi fàtte fàtte fàtte bi am am incidence ci euh, ci ci ci ni muy jëflante ak nit ñi bu fekkee ne naax la boo xam ne gêné wu ko dérange wul kenn mais day fekk neen fàtte bi souvent dafay am incidence ci diggante ak nit ñi xam nga nga toog sa njaboot di jiñ sàcc te fekk ne c'est li nga denc Euh, yaa xamul foog yaa fa yaa fàtte fi nga ko dencoon wala ngay jaawale sa sa njaboot euh, wala nga ne diw ñëwoon na fi te kooku dee na bu yàgg. parce que da nga gis sa doom mu am nuroo koo xam ne mu nuroo koo xam ne da nga ko xamoon. xam nga loolu déjà dafay am dafay gênant loolu moo tax ñu ne il faut que naax bi am impact ci relation nit ki ak. ak ak ak son entourage ak son environnement pour nga mën a def ni la jàng la diagnostic de maladie d'Alzheimer. tout à fait donte ne sax association américaine. Euh, de psychiatrie am na ay ay critères yu ñu tëral mais liñ ci jàpp daal mooy naax daal koo xam ne dafay fàtte euh, koo xam ne dafay dem ci wàllu wax dafay am yoo xam ne tur yoo xam ne da koy fàtte koo xam ne dafay fàtte nit ñi te it loo xam ne du dafay dem te du delsi loolu la ñuy jàppee naax boo defee rajo doo doo gis lu dul structure bi nga xam ne moo yoree xel ak xalaat mooy wàññeeku te daneen leneen loolu nekkul ci deret ji d'accord donc euh, une fois ñu posé mag bi diagnostic ba xamal ni ko euh, dafa dafa am maladie d'Alzheimer euh, ban taxawu la mag boobu war a am au plan médical waaw li gën a am solo li gën a am solo mooy parce que c'est une maladie boo xam ne du dellatu gannaaw non non non bu dellu moom si la démence est irréversible elle moom kay bu xasee ba commencé moom moom du dellu si gannaaw dafay kanam la jëm Euh, ci biir loolu il faut ñu tàggat njaboot gi ci d'abord ñu nangu ko. tout man man bi ma nekkee en France en Europe euh, bu ñu bu ñu daan def diagnostic malade d'Alzheimer bu ñu koy wax njaboot gi dañuy togg ak ñëpp parce que lu nan l'annonce diagnostique parce que ñoom sax fi ñu ko teg ñun teguñu ko ñoom dafa dafay loo xam ne dafa dafa dafay lu. dafa diis ci ñoom parce da ngay gis koo xam ne moom ak jëkkëram ñoo nekk doom yi dem nañ. te fii lu mu boni boni am na ñu la wër donc boo naree wax nit ki que ne sa sa jëkkër wala sa sa jabar sa soxna euh, xelam it mi ngi dem te dootul delsi te dana dana dem ba euh, dootul xamee dootul ràññee loolu dafay loo xam dafay dis ci yow. tout donc il faut ñu waxtaan ak njaboot gi pour ñu nangu ko. te it euh, li ñu naan dafay loo xam ne boo ko nangoo day daal di woyof waaye boo ko nanguwulee rek. dafay diis te dafay indi euh, problème sa diggante ki nga xam ne moom moo naax. tout à euh, te li may wax naan nit ku naax cofeel cofeelu njaboot gi moo ko mën a moo ko mën a moo ko mën a wéral. Mm-hmm. moo ko mën a gunge parce que du wéral mais gunge la. te euh, nit ki aussi bu nekkee ci yoon wu sori gunge ba bu rafetee dafay ñeme te nit ki bu ñemee rek ñeme rek xelem dal yaakaar naa lu bëri du ci du ci ànd. donc accompagnement mi daal la ñuy njëkk laaj. Euh, waxtaan ceeg njaboot gi ne leen nag feebar bi lii la am na ay garab yu koy faj parce que garab yi koy faj dinañ ci dellusi euh, bu ñu ko jot gi may mais. li nañ ñëw si garab yi nañ ñëw si garab yi parce que prise en charge euh, famille bi. Hmm. bu ñëwee si garab yi bëgg naa ñu ñëwaat ci parce que contexte tubaab yi ak suñu contexte bu bokkul. ñoom am nañ maison de retraite ñu ñëwaat ci prise en charge hôpital bi après ñu ñëwaat ci prise en charge sociale bi. li li ñu am daal. ci lu ëpp solo léegi sax garab yi am nañu bu njëkk ba man bi may commencé sama gériatrie bi booba garab yi ñu woon da nga naan bindal malade bi garab bi mu yónnee ko France booba mi ngi doon jaar euh, fukk ju nekk fukk ju nekk juróom la jar par par weer léegi am na ci yoo xam ne ñu ngi jar fukki junni am yoo xam ne ñetti junni la générique gi ñetti junni la par weer loolu nit war a jël loolu nag ko war a jël géeru dundam c'est assez lourd da koy jël géeru dundam booleeg bu fekkee dafa am garabu tension wala garabu jabet da koy jël géeru dundam. te it garab yi maanaam du wàññ du du du du du du du améliorer xel mi du faj xel mi mais dafay dafay dafay wàññi trouble di comportement yi maanaam day tax mag mi dal. parce que bu dalee ci lay gën a neex a faj. day tax aussi feebar bi euh, bu naroon bu naroon dund juróom-ñaari at mu dënd fukk fukki at wala fukki at ak juróom mhm. te euh, ni muy gaawee ni muy gaaw a e, e, tëralee mag garab yi da koy wàññi. da koy ralentir. Mhm. donc loolu la garab gi am. njariñ njariñ. du faj. du faj totalement maladie bi du ko dindi mais dina ralentir. Euh, progression da koy tëñ. d'accord waaw da ko mu ngi naan bu fekkoon da ngay yenu da lay tëñ. Mhm. mais lu am solo nag loo xam ne boo ko commencé am na sax garab yoo xam ne man sama wàllu expérience léeg-léeg dangay da ngay dem ba boo yàggee traité mag bi bu defee benn weer ñaari weer ñetti weer dafay mel ni sax. xel mi dafay gën a delsi ndax dafay gën a dal dafa dafay yu bëri ay fàtte yeeg commencé accusé dañ ma sàcc yooyu dafay da nga gis ne dafay wàññeeku njaboot gi ñëw ne vraiment ñi nga sant yàlla bi mu ko commencé jël ba léegi mm-hmm. vraiment am na yu bëri yoo xam ne bàyyi defatu ko d'accord euh, comme ñu ko doon waxee à l'entame dafa nekk feebar boo xam ne day euh, tax euh, indi naax xel bi di wàññeeku euh, donc euh, nit ñi mu dëkkal ñoo ko war a dimbale ñu mu ko doon waxtu tout par rapport à la prise de médicament déjà parce que ku xelam di wàññeeku donc du mun a gérer ay garabam donc déjà loolu il faut mu am koo xam ne il est très vigilant pour di ko jox garab yi heure yi mu ko ko war a joxee li nga wax nit lu am solo la parce que même même léegi ñun sax bu ñuy gisee malade dañ koy laaj ñetti laaj ñeenti laaj yoo xam ne Euh, ndax mun nga génn jël transport de ñëwaat ndax mun nga jëlal sa bopp garab ndax mun nga répondre téléphone ndax mun nga gérer sa alal ku dem ba naax dootoo mën a jël say garab parce que doo xam léeg-léeg doo xam wax ban waxtu moo jot doo xam ban bi suma jot doo xam foo nekk donc ñi lay dimbale li ñu li ñu naan les aidants naturels njaboot gi sa jabar wala sa doom moom moo lay dimbale jël garab yi di la ko jox régulièrement te it njaboot gi Euh, ndimbalam dafa am solo lool ci paj importance ñu bañ is di ko def feebar boo xam ne dañu nëbb léeg-léeg gis ko am naax mag mu am naax ci kër gi bu gan ñëwee ñu nëbb ko loolu day tax mag mag mi gën a rakkaaju et puis ñàkk patience bi aussi di jànni mag bi doo teey parce que dafa laaj teey mag mi boo xëyee par exemple bëgg a ànd ak sa war a ànd sa yaay hôpital um, hôpital waroo xëy rek ne ko yaay jógal sangu ñu dem hôpital mhm. da nga naan ko yaay jógal naxanteeg moom naxanteeg moom mu jóg léegi na nga sangu mu sangu kaay ma dafa la ngi nekk mu nekk nga ne ko léegi nag nañ génn dem hôpital seeti sa docteur naxanteeg moom par étape mais boo ñuy wax ko loolu information ko jox dafa bëri ba du ko mën a enregistrer bu comprendre day rëb day day téye boppam donc dafa laaj patience dafa laaj vraiment ak dal lu manqué lu ñu lu manqué ci suñu société bi professeur parce que sànq yaa ngi koy wax euh, à l'étranger ñoom am nañu euh, maison de retraite yi donc am nañu culture maison de retraite yi ñun mm-hmm. amuñu culture maison de retraite yi mm-hmm. et je crois que nit ki nekk en famille c'est l'idéal mm-hmm. que mu nekk ci maison de retraite mais mag toppatoo bu ngay gis muy am ci maison de retraite ñu ci bëri ci suñu réew bi amuñ ko ci seen biir ay kër moo tax mag yu bëri da ngay gis ni que euh, feebar yooyu du dellatu gannaaw ci ñoom au contraire dafay dafay daf leen di gën a sonnal. c'est c'est exactement ça. gis nga gis nga gis nga maladie d'Alzheimer. dinañ ci dellu si complication. yi yi muy indi ci nit. nañ ci complication yi. complication yi muy indi ci nit. complication yi muy indi ci nit. Euh, mooy ay jël. ay ay jël ay daanu. ma ngi génn rek daanu te kenn puusu ko. Mhm. te bu daanoo maa day taal poche mën na dama ak yooyu. Mhm. wala mu jeex tàkk. ndax ndax ñàkk lekk maanaam dénutri mais bi ci gën a bi ñu gën a ragal nag mooy bu mu dem ba tële mun dootu mënal bopp dara cër yi cër yi gaa dina fi nekk sax mais du mënal bopp dara da nga gis mag moo xam ne paralysé wul deful dara mais du mën a jël du mun dara du mun dara donc dem bu demee ba tële en France en Europe ils ont les maisons de retraite maisons de retraite yi Euh, ay ay béréb loo xam ne nguur gi ñoo ko ñoo ko ñoo ko ñoo ko ñoo ko jagleel ñi nga xam ne dañu dem ba euh, dañoo tële. Mhm. mais foofu nag la ñu daal dem dëkk géeru dund. Mhm. dañu dem ku ne ak seen sa doole toll nga am sa néeg boo xam ne wala sa appartement boo xam ne. Mhm. ah meuble yi nekkoon sa kër ngay ñëw indi pour créer sa environnement bu ko defee nga dënd sa géeru dund am personnel boo xam ne ñoo leen di ñoo leen di faj. mais et puis dinañ am vie sociale. dinañ am vie sociale parce que seen ay morom lañ. seen ay morom lañ fay fekk dañu am activité récréative mhm. mais même ci biir loolu sax du leen gënal. Mhm. mais ñàkk pexe la mais li li li tax ma sama xel dal ci ci ci ci ci ci ci loolu mooy dama mës a dem Suède. Mhm. dama dem Suède visité benn maison de retraite mais maison de retraite bi kër kër këru mag yi nga xam ne ay ñu ay ñu mag ñu tëll rek ñoo fa nekk. ña fay liggéey ay jigéen yu jóge Afrique lañ. d'accord amul benn tubaab moo fa gis. bi ma gisee sama naataango bi ma ne ko mais euh, lii lu ko waral parce que ñi ma gis nii ay Afrique lañ jógee. mu ne ma waaw parce que africaine moo gën a am xol toppatoo mag. parce que tubaab euh, dal gi ci ci dal gi mu laaj amuñu ko. d'accord. xam nga fii boo ko seetloo. man saa yu ma consult suma consultation boo ko seetee mag bu ñëwee muy mag bu góor doomam bu jigéen ma koy indi. parce que jigéen moo gën a mën a toppatoo mag. donc loolu. puis il y a l'affection mhm. mais ñooñu ñooñu fa dem aussi dañu te leen tàggat dañu jël ay africaines jël leen tàggat leen. parce que am nañ xol bi ak yéene bi mais technique technicité bi amuñu ko donc ñu leen jël tàggat leen. Mhm. donc ñun fii la ñu manqué am nañ xol bi ak yéene bi mais tàggat gi moo amul donc. tàggat bi yéen gériatres yi lu ngeen ci def. loolu am nañ ci li ñuy def lañ un programme de soins à domicile. Mhm. parce que mag ñi. mag ñi bu demee ba ci kër gi ba tële. Euh, naax ba tële. Euh, njaboot gi dañuy jaxasoo parce que du duñu am moyen dañu ko bëgg a dimbale mais duñu xam naka lañu koy dimbale te loolu ay tegtal rek. ay tegtal rek mag mi foog nga former mag mi pour xam exactement naax nu muy demee nan ngay wax ak moom. ban nan nga koy lekkee. Mhm. léeg-léeg bu bu werenteeg yow nga bàyyi mu jàll. Mhm. léeg-léeg tey bul xëccanteeg moom tey bu leen nëbb dara. parce que léeg aussi am am ku wàññeeku ci kër gi ñu ko koy nëbb. seen xel demul à 100 pour cent am na lu fi des loo xam ne dinañ yëg. danañ xam ne kër kër gi kër am na lu fi xew. tout à fait ñu ngi gis ay nit xamuñu ko génn te loolu day tax ñu ñu agité. Mm-hmm. donc euh, accompagnement bi ci ñu ngi leen di joxe ñu lekk. Mm-hmm. ci ñu ngi leen di euh, parce que léeg aussi dañu laaj sutura. Mm-hmm. léeg mag mi dem ba sàgg bëgg a suturlu. Euh, am nu mu demee loolu lépp daal da ci biir cofeel ak ci biir sutura ak ci biir jàppale ci lañ mën a dimbalee mag ñi xam ne ñoo am Alzheimer ci kër yi. Mhm. ba euh, vraiment euh, kër gi benn déséquilibre du fa am. du fa am justement donc euh, temps bi jeex na. Mhm. ñu def un petit mot par rapport à la prévention pour tëj professeur. waaw naax daal boo ko mhm. seetloo. jigéen la gën a yab. mag la gën a yab. ki wéet la gën a yab. ki jàngul la gën a yab. ki nga xam ne am na tension faju ko la gën a yab. ki nga xam ne dafa dafa banku rasu ci moom la gën a yàpp naax daal bu ñu ko bëggee bu ñu ko bëggee gàttandu euh, dañuy dañuy xiir nit ñi surtout xale jigéen na leen xiir ci njàng njàng lu am solo la nañuy xiir nit ñi bu ñu amee tension ñu faju nañuy xiir nit ñi ñu dem ci dembeeg dikk bi gis nga tonti nii ak daayira ak daayira yi ngeen gis nii ci ci jigéen ñi lu am solo la parce que dugalante bi am une vie sociale am une vie sociale lu baax la ci mag c'est waaw loolu day tax ba vraiment sa xel di dund ngay fàttaliku loolu daal lu am solo la dund daal. dafay lu am solo loo xam ne boo jëm mag dañ ko gën a. d'accord professeur fooy jeexalee. mooy naax daal. Mhm. du dara lu dul. Mhm. Euh, mun na kenn jombul naax. Mhm. naax jombul kenn. tout à kenn parce que dañuy ñaan mag. Euh, li naan euh, mag dañ ko bëgg rek waaye neexul waaye nag dañ xam ne mag moom du yàlla waaye yàgg na ak yàlla. tey ku dem ba yàgg ak yàlla yàlla nit day faral moroom te mara yàlla aussi day faral mag ñi donc ñu fonk mag ñi mhm. ku ci am nag mu naax nga jàppale ko euh, service gériatrique bu Fann ak médecins yi nga xam ne ñëpp ñi ngi ñi ngi faj mag ñi taxaw nañu en tout cas pour jàppale ñi nga xam ne jaaxle nañu ci wàll woowu pour pour jox leen dimbal. d'accord donc euh, merci professeur Koumé moom lañ nekkaloon euh, mu ngi doon jox ay tette ay leeral par rapport à cette maladie d'Alzheimer patient ak mag yi di toppatoo mag yi di fàttale fàttaliku ne ñoom ñoo ñu doon gérer ba ñoo ñu doon tette ba ñuy xale donc di leen bàyyi xel bu baax a baax c'est toujours un plaisir professeur de vous recevoir sur ce plateau de Sen Santé merci à vous chers téléspectateurs de nous Santé. santé. Au TV, bienvenue chez vous.